fonction publique locale Sénégal jaar ci ay yoon yu bare gannaaw code de la fonction publique bu atum 1969 ci atum 2011 la ñu amal cadre légal ak réglementaire bu bile secteur waaye gannaaw fukk ak ñaari at ñu nemmeeku ci ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum maîtriser effectif ba ca ne loolu tax ba ñu amal bile lël ngir gën a mën a saytu bile secteur. il faut d'abord ñu xam nu ñu tëddee ñaan ñoo ci nekk fonctionnaire ñaan ñoo ci nekkul fonctionnaire ñaan ñoo ci amee contrat. Euh, ñaan ñoo ci amul contrat ñaan ñoo ci am ay CDI ñan ñoo ci am ay CDD. ensuite ñu xam aussi euh, yan qualification la ñu am ndax am nañuy diplôme ndax am na ñuy métier ndax am nañuy diplôme ban formation la ñu am. ñu samp ko ci atum 2021 centre national de la fonction publique locale de la formation ak ay partenaires am ñoo amal bi la lël. waaw ngir loolu itam rek mën a am jëw nga xam ne mooy jëwriñu français bi ñu dénk wàllum Europe ak bitim réew dafa daal indi ak akub ndimbal ba tax na ci centre national ci wàllum fonction publique territoriale waaye tamit ñu mën ko weccoo ak ressource météorologique bi nga xam ne moo ñeel centre national bu fonction publique locale bu Sénégal. gannaaw bu ñu collecté ay données wu collectivités territoriales yi rapport yi tukkee ci bi la war a jox beneen xar kanam collectivité territoriale yi. le diagnostic doit permettre de décliner. waaw càmbar gi tamit dafa daal di tax rek ñu di teg ay recommandation yi nga xam ne day garantir fonction publique locale bu waa euh, am doole waaye tamit boo xam ne daal dana nekk lu compétitif euh, bu delloo ci wàllum intégration ci euh, liggéeykat yi ak seen wàllum tàggatu. de formation continue adaptée aux besoins. mu di lu am solo ngir dooleel ressources humaines yi ak seeni capacité technique ci collectivité territoriales yi bu ñu sukkandikoo ci ministre rapport bay tukkee ci bi la diagnostic daañu ko jëbbal président de la république ngir ñu mën koo jëmmal